waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki julli yi ñuy seetaan yëpp ci àddina bi fi ma nekk ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak jëmmam di dellu si ci suñu yóbbalu koor ci barkeelu ci sunna si Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu ci koor ci jàngalem yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci saxiixul Buxaari tey ci kitaabu sawm ñu ñëw ci bunt bii nga xam ne mooy baabu sawmi li man xaafa ala nafsihi l osbata maanaam mu ne lii mooy buntu oor mu ñeel ki nga xam ne dafa ragal ci boppam ak célibataire maanaam muy góor wala muy jigéen maanaam bu nekkee célibataire óolul boppam ci li nga xam ne mën na koo pousser mu jëm ci loo xam ne dafa naqadi yàlla mu ne loolu koor ñaal kooku noonu mu ne loolu mooy bunt bi mu ne xaddathana abdaanu an abi hamzata an il amashi an ibrahima an alqabata qaala bayna ana amshi ma abdillahi radiyallahu anhu fa qaal kunna ma annabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal man istataaca albaata falyatazawaj fa innahu agaddu lilbasar wa axsanu lilfarj wa man lam yastatic fa alayhi bi sawmi fa innahu lahu wijaaun mu ne jëlee nañ ci Amash wala boog jëlee nañ ci abi Hamza mu jëlee ci Amash mu jëlee ci Ibrahim mu jëlee ci Alqama mu wax ne bi nga xamee ne mu ngi dox ànd ak Abdullahi radiyallahu anhu muy Abdullahi bnu Omar radiyallahu taala anhuma mu ne Abdullahi wax ne kunna ma annabi nekkoon nañu ak yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne man istataa al baata maanaam ku mën a denc ci yéen am na foo xam ne sax yaa maachara shabaab yi la wax maanaam wax ji daf ko adressé waxambaane yi xam nga takk en général wala boog ñàkki jabar ba nga xam ne ñàkki jabar gi dana la poussé ci loo xam ne yàlla nanguwul ko lu mel ni njaalo loolu ci ak ndaw lañ ko gën a seen tax moo am kattan moo tax yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na foo xam ne yaa a shabaab la wax maanaam dafa sa ndaw ñi ne sa istataa al baata képp koo xam ne man ngaa denc maa denc nag mooy lan mooy denc dafa am lu mu ànd ak ki nga xam ne am na kattan ci mën a amee ànd jigéen ba pare man koo dëkkal man koo wodd yooyu yëpp ci mën a denc la bokk moo tax sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp koo xam ne na ma ngaa denc mu ne na takk ndax takk gi ngay takk amee jabar moom dana la musal ci yu bëree bëri fa innahu aghaddu lil basar parce que bët dafa doy waar xam nga boo gisee alkuwaan bi mu ñuy aayee njaalo waxuñu bu leen njaalo daf dañu wala taqarabu zina la wax bu leen jege maanaam jege mooy na li nga xam ne moo lay poussé nga mën a àgg ci njaalo bu ko jegee te loolu bët bokk na ci li nga xam ne moo koy indi ndax xool mooy waral kanam kanam teef am ba njaaloo mën a taxaw waaye bu fekkee ne nag euh, jullit bi yàlla dimbale na ko bu fekkee ne mu ngi sëy amee jabar wala mu amee jëkkër bu jigéen bi su boobaa yàlla mën naa fekk ay bëtam ba xam ne la mu waroon xool ci jigéen wala la a xool ci góor ba mën a jaxasoo moom ci luñ xaraam daf koy defal ki nga xam ne moom moo dagan ci moom muy jabaram wala muy jëkkëram moo tax mu ne su boobaa fa innahu aghaddu lil basar maanaam takk googu muy takk dana muur ay bëtam ba xam ne du ma def loo xam ne dafa xaram waa ahsanul farj dana mën a aar pëyam maam dana ko eh, aar aar goo xam ne du mën dem ci li nga xam ne moom mooy moom mooy njaaloo mu ne bu fekkee ne nag yow waxambaane wi nga xam ne jullit nga bëgg ngaa am soxna waaye amoo moyen yow mën a amee jabar waxul la bul ut jabar de parce que am na ñoo xam ne amuñ moyen waaye mën nañ leen dimbali ñu am jabar waaye bu fekkee ne yow da ngaa óoluwul sa bopp parce que yow leer na leen soo amul jabar sa bakkan bii mënoo ko noot ba nga xam ne du la mën a euh, li mu bëgg dinaa la ci mën a yóbbu amoo pexe yooyu noonu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu lay jox solution mu ne waa solution bi kooku nga xam ne bëgg naa amee soxna waaye mënta amee soxna te óoluwul boppam ci mën a téye boppam mu ne fa euh, fa alayhi bi saw mi kooku na taqoo li nga xam ne moom mooy moom mooy mooy koor ndax or li tax mu baax moom mooy ki nga xam ne mu ngi or benn koor dafay fexe dafay feebul maanaam li nga xam ne mooy ay bànneex ci ne ci moom daf koy rey daf koy lompañal daf koy euh, feebulal ba nga xam ne sa diit yi ni mu waroon a jugee bay man a àgg ci bànneex boo xam ne dana ko mën a yóbbu mën a def lu bon lu mel ni njaaloo su boobaa koor dafay euh, xatal sa diit ba nga xam ne sa diit yi ni ñu war a taxawee duñ ko duñ ko taxawee moo tax bokk na ci euh, solution yi nga xam ne yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox na kon jullit bi nga xam ne amewut soxna óolul boppam ci àgg ci loo xam ne yàlla def koo daf koo daf koo tere mu ne su boobaa na taxoo li nga xam ne mooy koor ndax koor li ci nekk ci ay lu baax dafa bëri yàlla lépp loo xam ne daf ñu ko digal rek pour ñun la waay du pour moom ñun ñëpp xam nañ ne koor tey amul benn docteur boo xam ne bu lay defal traitement ñemewul laa wax ñemewul laa wax mukk ne la na nga toog lu ma juróom-ñetti waxtu wala juróom-ñeenti waxtu yoo xam ne bu ko lekk kenn ñemewu ko moom kay dañ naan la bàyyi reer wala boog añ lekkal nangam ak nangam bàyyil xorom waaye toogal fukki waxtu wala fukki nanga bu ko lekk benn traitement kenn ñëwul ko wax yàlla rek boo la ko ñemee wax te yàlla mi la ko sant nag xam ne loolu dafa baax ci sa jëmm ji baax dafa baax ci sa yaram moo tax mu sant la ko kon liñ ciy déggee ci xadis bi tey rek moom mooy ne képp koo xam ne jullit nga ndaw nga am kattan mën a denc mooy na nga denc ndax amee amee jabar daf lay jox encouragement nga am jom mën a jël responsabilité waaye dooy na ci rek li ci nekk dana fexe ba nga xam ne yow da fegu parce que ki nga xam ne dafa nekk ci sëy muy góor wala mu jigéen kooku yàlla dimbal na ko fegu na yu bëri mën na cee mucc ñaareel ba dana bokk ci ñi nga xam ne dañuy yokk xeetu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yontu bi sallallahu alayhi wa sallam moo nañi nañ takki ay soxna ndax ñu mën a am ay njaboot ndax moom dafa ñuy tiitaroo ëllëg ci kanam yonent yi maanaam dafay fexe ba nga xam ne ñun buñ bëree ëllëg ñu bëri lool macha allah muy xeetu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën ko tiitaroo ci kanam Euh, mbokka bi nga xam ne ñoo yeneen yonent yi kon euh, xadis bi dafay xër képp koo xam ne jullit nga waxambaane nga wala ku du waxambaane sax am na koo xam ne mu amee benn war na am na kattan yi amee ñaar na uti ñaar ki am kattan yi am ñett na am ñett am kattan am ñeent am ñeent parce que bu fekk woonee takk mi am rek ni ñu war a takkee daanaka jigéen ñu bëri duñ taxawaalu waaye góor ñu bëri tamit duñ nekk ci luñ luñ war a nekk ndax yàlla lépp lum tër rek xam na ko te buñ ci toppee rek benn problème du am waaye problème bi am léegi nag mooy ñi man ñoo defatul ñu mënul ñooy def loolu mooy problème bi am léegi. am na koo xam ne moom mën naa am ñaar am na naa am ñett waaye ci kenn lay am am na koo xam ne kenn sax mënu koo yore waaye moom moo am ñaar ñett ba jëm ñeent bu ko defee nag problème dafay ñëw parce que ku nekk responsabilité bi nga waroon a téye da nga bàyyi euh, keneen jël moom li nga xam ne li mu téye moom du lu man du lu moom loolu moo ñu indi problème ñëpp ñàkk a mën a amee soxna tamit taxul ñu la bul ut soxna parce que am na koo xam ne ci kanam yonent sallallahu ah fekk fa benn jigéen joo xam ne dafa may maye boppam a ah, waaye mu ngi ne waa ji mu ngi seene yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxlawul ndaw si mu ne ko may ma ko laaj ko can amul can lu mu ko laaj rek lu ci gën a néew rek amul ko fan la mu jóg moom mooy li mokkal ci alquran la ko wax na ko nekk mu nekk canam kon mooy ne am na ñoo xam ne tamit mënuñu waaye dañ leen dimbale pour ñu mën a mën a am soxna wax dëgg naa sama waajur Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop rahmatullahi alayhi benn jigéen laaj ko benn wax laaj bu am solo mu ne ko ndax am ñaareel te mënoo ko ndax loolu dafa xaraam wala xaraam mu ne ko xaraam ak dagan moom du ci gaaw a wax nañ ko teg fële waaye daal liñ xam moom mooy ci ñun ci suñu aada yàgg nañoo wax ne diw de man na waxamaane te amul soxna kon nañ ko dimbalee mu am soxna dem kër nijaayam wala kër bàjjanam waaye nañ dimbalee diw mu am ñaareel mu su ko dégg ko déggee ci ne ko ñaareel képp koy am rek da ko war a man waaye loolu liñ ci déggee nag mooy ne nañ góorgóorlu bu baax ci uti ay soxna sampi kër képp koo xam ne yàlla saa nattu nag amoo moyens yi bëgg nga waaye manoo su boobaa soo bëggee mucc yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne jox na la solution solution moom mooy nga taqoo koor yàlla yàlla fegal ñu suñuy bët fegal ñu suñuy pay ñoŋal suñuy xol yi ba nga xam ne dañ sax ci yoon wi nga xam ne moom lañ yàlla sant moom anna hada siraati mustaqiman fa tabi'uhu wala tatabi'u subula wa tafarraqa bikum an sabilihi li ci sawaab yàlla ñu ko yàlla boole ñu ñëpp li ci njuumte yàlla ñu ko yàlla jégal yàlla rek mooy aji xam ca dëgg-dëgg yàlla ñu yàlla xamal allahuma salli ala sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman